eh taxaw lii ngay def nii yaa ngi dégg laa lay teg y a des choses yoo xam ne ça ne va pas ñun dañoo nekk ci weeru koor est-ce que nga bu baax li ma la wax soo amee looy lekk nga lekkee ko fa ngay liggéey nga toog fii moom ah loolu day yàgg démb rek maa ngi ciy waxtaan ak femme bi nga xam ne ci kër gi la dëgg sax moom vraiment ñoo bokk yaa ngi dégg. te que moom laa mën a waxal asuma la ak yow yow nag tu es mon ami mais da ngay arrêté. man damaa tàmbali ak fii fii laa koy lekke fii laa koy naane fii laa koy taawee. nga ni eh, xool wuñ ma waaw génn demal demal man nga doon seet léegi bu ma seet parce que yow dama laa bàyyi si ni nga nekkee quoi. yow maa ngi fooy yaa ngi man maa ngi fooy yaa ngi caaxaan. wax nga wax wax bi la man caaxaanuma foowu ma yaa ngi dégg te que yow yaa ngi foofu ngay caaxaan yow nga tout ça naaj bi dafa tàng man dama am. dama dama eh, waaw ça va nu def. sant naka koor gi. koor gi dem may déglu koor gi dama koy laaj ñi nga xamante ni ñooy sa màppandoog ñoo sa nawle te et puis yaa may bëgg a soof yow sama kër gi jour bi mu fi mujjee ba léegi aw ma jàmm aw ma salaam yaa may déglu. vraiment munoo yëndoondoo moom suba teel ba ngoon nga war koo bàyyi mu ñëw ci kër gi nga di ko fi toppaat nag du ruube rek benn affaire nag dinaa la ko xamal sa jëkkër mbon nga mu mbon mbonuma ko yées nga mu yées yéesuma ko la muy def man du ma ko def sama kër gi laa toog maag sama jabar te lenn nag ko yëgal fii benn gañoo fi am maa koy takk lu leer nañ naa la. eh arrête Abdou yow lan la. yaa may loolu yaa ko wax loo may wax man mi naa ma benn géño la yaa ko man ma xam kër gi ni mu demee. ah da ngaa xam mu demee. waaw ma ne Abdou nga toog. vraiment lépp fi day noppalu. yow sama jëkkër jooju ngay wax lu sa maas maaso doomu la ak yow. waaw ndax man damaa tànn ki nga xamante ni ku ma mat la ku ma mën la ma sëy moom. nu muy def. tax mu ne ba sonal bi waroon naa fekk nga toog di toog ndox wala nga gérer ko yow sa jëkkër amul ci yow benn benn benn benn cappa sëy. ani borom kër gi borom kër gi laay laaj mun naa soxla. waaw yow yow yow rakk ma nii nga kooku day noppal kooku man la tal. kooku man la tal man. yow ko yaa. te yow bu ñu nekk woon ci weeru koor dina am problème bu rëy. Ah, weeru koor am na yoo xam ne mënoo koy de ah kon da ngaa woon noonu sa caay. waaw baax na baax na man vraiment moo may tooñ man. mi nga xam ne maay borom kër gi ah muy dem ci ay xaritam yi nga xam ne seen i jëkkër li ñuy def xaaj ba xaajaat ba defuma ko muy wër di ma wili mbànde mais loolu moom lu may la jënti la lu may rek la la waaw yow sa jëkkër a ma ñetti yoon bañ maa ko doon lijjanti fii maa ko doon lijjanti mu maa xas tuuti nga di ñàkk jom ba dee toog la seen kër